dal leen ak jàmm mbokk internet yi ki ñu lim ci wàllum phobie bi nga xamante ne jotoon nañ ci teg loxo lu toll ci juróom benn doomu aadama foofu lee ca mbaaw mooy politicien bu mag bu siiw bii di Farba Senghor tudd guñ ko tudd ca mbirum deux milliards ya moom moo tax mu daal di génn daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci loolu Farba Senghor di xamale ci ay kàddoom ne boobule xibaar dëgguwul te amul fenn fuñ ko teg du lu wér ay waxi kese la ay sos yu ñu yëkkati la ngir teg ko ci sama der man Farba Senghor ndax xaw ma kenn ci ñépp ñi nga xamante ne jot nañ leen jàpp ci mbir mi amu ci kenn koo xamante ne xamante naa ak moom te sax waxuma la ñoom waaye kenn rek ci seen jege ñaala ci ñoom ñooñu ñu taqal ci mbir mi amu ci kenn koo xamante ne sax xam naa la ca te xibaar bi ma ngi a maa ngi faral di génn ci rajo yi ak télé yi di wax di yëkkati ay kàddu ci mbirum coronavirus ji te sama diggante ak président dara ñàkk su ca daanaka jamono ji dañoo neexoo lool ba tax ma gis ne ñenn ñi dañoo bëgg rek yàq sama der ngir mën maa jaxase ki nga xamante ne nii moom mooy président Farba Senghor yemul foofu nee na ki nga xamante ni moom mooy Pape Diop bi mu koy mujjee gis ci ab dëj la woon te fi mu toll nii maag moom du ñuy sax déggante ci téléphone waa léegi naka laa mën a séqi ak koo xamante ne nii daanaka teguma ko bët waaye itam déggante ak moom loolu mënta nekk mu mel ni dañ ko laaj ndax yoon woowu la ci mbir mi moom Farba Senghor di xam le ne kenn woowu ko ci mbir mi te kenn mënu ko woo ndax bokk ca takku ca yëgul tinul amul benn woy takk der moo xam police la moo xam gendarme la bu ma jotoo woo ci mbir mi ñu dem rek li ci kanam moom raw li ba te bu ñu fàtte ne Boughazelli dafa weddi woon laata muy sukk ci kanamu yoon boole kook ay jooy yu métti nag cay lii ngeen jëf